له خطابي وتاتني مناي معا من فضله الواسع المغني ذوي الوطر له خطابي وأرجو فوق مطلبتي من جوده النافع المستخجل المطر يا ذا السماوات والأرضين منفردا مع الهواء ويا ذا البحر والنهر inni faqiirun xaqiirun laysa li amalun bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa ala xayri xadimihi dhi al habli al matin wa ala man iqtafa atharuhum ila yawmi ddin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 ci li nu boole te boole noog sëriñ bi te moo di ak taalibe muy iraadatun saadiqa ak taalibe gu dëggu nit bu nekkee ci mbir <coughs> te pas-pasam aju ca war na ca war na koo xam ba bu ca nee xam ne xam ne maga ca bu ko génnee xam ne génn na ko moo tax di ko waxtaane nekk lu am solo jëmmi ak taalibe bi ci boppam nag Sëriñ Tuubaa damay wax ne indiwut lu yees sosul dafa sof lislaam joor yi sunu Boroom joxoon yonent bi saa sunu yónni ko ko lislaam joor ji la fekk ab rax tàbbi ci lu bari tàbbi ci lu ca bokkut lu bari génn ci lu ca bokk lu ca bokkoon mu ñëw def lu ñu li ñuy tuddee tëj tëj diit te mooy yeesal mooy la ca génn te bokk ca lépp mu delloo ko ca lañ ca dugal te bokk ci mu génn ko ca taalibe googu na nga xam ne mooy lu nu booleeg moom moo ko jàngaleel boppam am na fu muy wax ne li yantabih kullu muridin raama alwusula lilbadii almaliki ala umurin filuha bururu wa min alhawa gururu wa hiya sabatun bila ziyada wa man yulazimha yahu siyaada ne bépp murit bu sóobu ci yoon wa te bëgg yàgg maa ngi koy yee ci ne ko mbir yi mënu caa ñàkk tënku ak tënkoom ca loola mooy dëgg-dëgg ak mbaax waaye su su ca tënkuwut nag bànneexam war na ko juróomi yaar la yoo xam ne ëppul yeesul waaye ku ca tënku ku nekk dana làq ak càng mooy dana doonub sang juróom-ñaar yooyu ko mën nañu wax ne mooy yi tënk ab taalibe ba tax ñu ne kii mu di saadiq la juróom-ñaar yooyu bi mu koy lim lim njëkk a tudd mooy liggéeyal sëriñ bi li ñu tudde xidma muy liggéey boo xam ne yow mi koy liggéey sàkkoo ci pay gu teew waaye danga ko def ngi sàkku ci ngërmal yàlla payu ëllëg jëf ja nga koy jëfal nag te yàlla dong tax séetoo ci daray tey séentoo ci daray tey loolu mooy xidma defal ko sëriñ bi nag mooy mooy mooy njëkk aw awaluha alxidmatu na nasih di wàcce baaxin xad ataminhul fasih ba ca topp di ñaareel bi nga bàyyi gaaral ak diingat diingat mooy di laaj mbat waxi sëñ bi mbaa ay jëfam di seet loo cee jàpp ak looy bàyyi mbaa ngay seet loo ca rafetlu ak loo ca ñaawlu te loolu néew nañu ci mucc ci ñun gaaral na mooy nga dugal ci baat dolli ca sëriñ bi dee wutoon def nangam la wutoon wax nangam wala wutoon dem baru sàngam wala yu mel noonu loolu li fekk bàyyigut na la woon doon ak murit loolu sëñ bi wax ne wa thani tarku li i'tiradi zahira wa batinan bi ay yakuna tahira mooy da nga ko bàyyi ci saaxir bàyyi ko ci batin bàyyi ko ci saaxir mooy doo ko wax mukk ci saw làmmiñ bàyyi ko ci baati mooy doo ko fas ci sa xol soo ko waxut te fas ko ci sab xol yaa ko ko wax yéen a bokk baate kon bàyyi diingat bàyyi gaaral mooy ñaareelu sartu iraada sadiqa taalibe gu dëggu ba ko ñetteel mooy faaw nga xam lu say faratey jëmm xam-xam ci ponk yoon wi la bokk ñaari farat rek am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 السلام ñaari farata rek far muy fardu ayn ak fardu kifaaya fardu ayn mooy farata ji nga xam sun moom da ko gàll jurit bu nekk nga xam ne kenn mënu la cee wutu kenn kenn ku ne yaa ko defal sa bopp kenn mënu laa wutu la ajjuma mu wàcc la kenn mënu la wutu waral la mu wàcc la ak ya mel ni ñoom yooyu xam ko xam noo koy defee su yàqoo noo koy defee xam googu mooy ñetteelu ponk wala ñetteelu sart ci sarti bi gu dëggu loolu sëriñ bi wax ne thalithuha taallumul furudi al mutaayanati bi tafridi ba ko ñeenteel mooy faaw da ngay jébbulu faaw nga am koy so ci moom koo jox sa mbir mun naa la defal ngay def mun naa la bàyyil ngay bàyyi da rafet njort ci moom rafet njort ga mooy tax sax xel di dal ci jëf ay ndigalam sa xel di dal ci bàyyi ay tereem waaye koo rafet njot ci moom mënoo jariñ ci moom kon rafet njottu gal dañ ko caa charte loolu sëñ bi wax ne raabihu xas tislaamukum bi xusni zannin fa suu zanni murdil xas ni kon jébbu lu mënta ñàkk jaayante jébbu lu mooy mooy ca sànni mooy jaayante jaayante ci lislaam gannaaw bi sunu boom yónne yónni saa suñ jox ko ndigal mu woote ba mu wootee ba saxaaba yi eh, ñëpp dugg ci lislaam ndax ba ashadu an laa ilaaha illallaah ma doon dugal ci ci lislaam waaye bañu demee nag ba nga xam ne dugg nañ ba ba bari ba ba dëgër ba lislaam dëgër la sunu boom doo joxe ndigal jaayante ne balaa sunu boom nangu seen seen ngëm dañu jaayante yow ñëpp jaayante yónni saa salaam kon jaayante googu mooy jébbalu juróomeel bi mooy nga aju ci sëriñ bi aju gu wér aju gu wér aju goo xam ne du ànd xol bi dengi dengi mbaa bi sikki sàkka tolu ñàkk a rafet njort ga waxoon léegi moo ko yóbbi dangay ngay wommat rek bu xasee doon sëriñ bi sëriñ da ngay wommat rek fu mu la jëmee jàpp na fa fa gën ci yow donte daa daa digal lu wute la nga xamoon it jàppan lii mu la digal ci la sa njariñ nekk yow sëriñ bi nag néew na lu muy li ëpp ci li muy jëfandikoo baat baat bu jëf bu aju la ëpp lu muy lu muy jëfandikoo al mutaalliquna biya moom la ëpp lu muy jëfandikoo kenn ci mag ñi nag sëñ ma bànji njaay sëñ bànji xojja bàll la moo mas a ne ko Mbàkke de bëggoon nanuk leeral ci baatu taalluq mu ne ko laaj nga lu mat a laaj wool fere yi moo koy leeral ne ko taalluq te mooy aju mu ngi mel ni yow mu sol saw dal la di dox fi barab baam loo joggi loolee taq ca dal wa te bañ koo kël ngëj tamay nekk dal wa ci nekkoy ba loolu mooy fekkee da nga joggi lu rëy mu tax ci saw dàll soo doxee ñaari jéegu dañu nooy def da ngay taxaw dindi ko sànni lu tax da koo kël ngëj moo tax moo tax mu ne kon na ko na ca taq te bañ koo kël ngëj suñ toogee jataa ba yàgg ñu ne am na luy xeeñ luñ wut suñ seetee gis nga dañuy wax nañ seet dàll ya ñu seeta daal yan daal wuñ ko fekk dañuy génne moom xeet ko ci biti ba mu seet ñu delloo si dàll wax kon dafa kon dafa nékk dafa euh, dafa dafa ànd mu kon dafa mel na mel mooy su ñaat su su su muccee ci ñett su muccee ci ñaar yi nag foo dàll wi teew loolu dana fa teew daal loolu loolu mooy aju loolu mooy taxoo sëriñ bi taxoo sëriñ bi tekkiwul fu mu nekk nga ne fa la muy tekki mooy foo nekk ak loo ko sori sori na ngay sax jëf la muy digle bàyyi la muy tare mel nam bëgg ko na mel koo def fo fo sëñ bi ne yaa fa loolu sëñ bay jaxate doon jàngal ne sëriñ ku aw ndigalam yaa nekk fi wonagam ne fi xolam ëpp sëriñ kuy may kuy ndigal sëfu ko te donte yaa ngi fi poojam tey mooy ndigalem seen seenu diggante fi sundar loolu kon moyu ko te donte yaa nga fa manding tey jëfin jëfi ndigalam xamal ni yéen a ngi riisoo yàlla seere na ko kon jege sëriñ bi ak sore ko kon du ci jëmm waaye ci melokaan la ci aw doxin la ci pas-pas la ci nga koy jege ci nga koy sore loolu sëriñ bi wax ne xaamisuha taalluqun bila marad xalbin bi shakkin aw tatatubin arad ba ko juróom benneel mooy danga koy ëmbal ak cofeel gu dëggu ci sa xol ba mu sa jëmmi bopp ji gënal la sa ñaari waajur gënal la sa doom joo jur gënal la ci nit ñëpp cofeel goo xam ne dalay yóbbu ci dootoo am sax ak bëgg ko bañ waaye ak bëggam mooy doon sag bëgg ak bañam di sag bañ loolu wax ne saadi suha xubbun yaquuri lin jial muraadihi fawxu manaahu bin fial ba ko juróom-ñaareel mooy lépp looy sàkko ci nga sàkko ko ci barke ndax mooy sa bunti ci yàlla ne woon na waatul bu yoo tamit nab waa biha su ngeen dugg ci néeg jaar leen ci buntu gannaaw mooy sa buntu ci kon lépp looy sàkko ci yàlla na nga ko sàkko ci barke moom saabiuha alla yuruma faida bi gayrihi min man ata bil maida fa haatihi atat muxaddamaati li taalibil ismati min xummaati kon yooyu mooy àndaar ji nga xam ne ci la murid bu nekk di natt boppam soo ca natte sabo fees ko dell jàppal nga murit saadix nga sañ ko ko tuddoo sañ ko wuyoo soo ca bàyyee benn nag soo dee murit te doona ko saadix te def naa ñëpp ay saadix liñ bëgg a doon murit nag baat bi li muy tekki mooy rek ku am lu bëgg aji namm kii bëgg nag mën naa bëgg lu ne waaye ñaari mur ñaari murit rek am du dunya ak muridul axira minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu laaxirata sëñ bi ne bu buy waate kon mu muritu àdduna tax ko tax ko tax koy waate tax koo jóg ndax sëñ bi musta daray àdduna musu ko musu ko tax jóg musu koo gersu sax ndax lam waxaloon boppam wax ne yaari yëf moo ma tax a sañ ci Tuubaa daw nit ñi ak daw li ci loxoy nit ñi bi ma yegsee yaar laa fi fekk wiit nde ak saawa kon may ab àll rek la fi fekk bi ma fi ne jàng ñaara ma fi fekk ku yàlla dong ñor ak ku àdduna dong ñor tamit mu boo yàlla mu ne ñooñu ñaar na kenn jaaxalu ko ci kii wut àdduna sun ma jox na ko àdduna te soxlawu ci dara dana ko dana ko ko xëpp kii wut yàlla nag dinaa ko mat ma ne ko yàllaa ngi nii lañ ko doon gaaral ci àdduna ak lam leen tontu xanaa xaarulee xaarulee kan la ba salatine jay moo koy firndeel loola foofa la ko àdduna dëgmale moon ko gannaaw ndax booba jege buur lu ñëpp bëggoon la nit àdduna yëpp lu lañ bëggoon sëriñ si bëggoon nañ lool jege buur ndax la ca nekkoon ci askoom waaye man yàlla doy na mu tudd doy loo naa ko nee dem ba yàgg àdduna woon ma gannaaw def ne bu ma wonee gannaaw dinaa ko dabu waaye ma ne ca la ma ne woon rek wa baadaha an yi adbara walam amillaha li kaw ndihaa daara zulam may bu demee ci géej gi gisatu mbokk gisatu taalibe gisatu soppe gisul lu may noon yoo xam ne saa bu ñu xëyee xëy ci lu fi jële ba kanam saa bu ñu gonto kon lu fi jële ba kanam waaye na xusóori xale wala ahlu an yi tafaraqat boobee tiis na lool sama kër ya gent na sama njaboot tasaaroon te dara teew ma ko loolu tagg yonente bi sallallahu alayhi wa nee ba yàgg àddina wal àddina wëlbatikaat delluwaat dëgmal ma waaye man na ca la ma ne geesuma ko sax wa baadaha li lii doo inni aqbaltu lillahi wa abqaa man nii kon àddina musu ko tax a jóg kon ku koy topp doo ko toppi àddina ba ma xelal dafa caa teg ne ñi ma topp am na ci sooy sooy xool day mel ne man lañu topp te fekk déedéet addina jii ma topp rek la topp si ndax nee ci yoonu mujj bi ko àddina toppee dafay ànd ak moom dafay topp ci gannaaw moom geesu ko soxlu ko waaye àdduna topp ci gannaaw mu ne am na ñu ma topp na ñooñ àdduna lañ topp suuf sa àdduna dëppoon ñu dëpp kon kon kon sëñ Tuubaa mënee su ko nax du nax kenn waaye kenn mënu ko nax kon ku nekk kon sa pas-pas ak fa sa yitte toll foofa nga jariñoo ci moom yoon wi nag moom ñaar ak ci jëm mi yitte ak pas-pas Sëriñ Muntaxa da koy da koy da koy baamu lu bare bare bare yitte lu waaye am moo ko may waaye càggante lu waaye ñàkk moo ko xañ kon murid day am pas-pas am yitte te bañ a sàggan yàlla na yàlla bool dimbale bool defal tawfiq xiir nu ci njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg dëgg dëgg taalibe bi Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu an laa محمد رسول الله الحمد لله الذي أمر فوعد ونهى فأوعد فسارع أولو النهى إلى امتثال أمره واجتناب ما عنه نهى والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أفضل من هدى إلى الله تبارك وتعالى وعلى آله وصحبه الذين اختاروا الدار الآخرة الباقية على هذه الدار الفانيه وعلى من تبعهم بإحسان إلى اليوم الذي يجازى فيه بعمله كل إنسان أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وخذوا حذركم من أعدائكم وأعداء أعدائكم نفوسكم التي بين جنوبكم واعلموا أن الدنيا قصيرة الأمد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فاصرفوا هممكم عن زهرتها التي كالعدم ووجهوها إلى مولاكم الذي هو أولى بكم تفوزوا بالنعيم المقيم الذي أعده لأوليائه وتنجو من العذاب المقيم الذي أعد للمعرضين عنه وعن أصفيائه الحمد لله الذي هدانا بالكتاب والسنة وأخذ علينا ميثاق الاقتداء بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنه نشهد أن لا إله إلا الله الذي ارتضى لنا الإسلام دينا ومن علينا إذ بعث فينا نبيا أميا أمينا أما بعد فيا أيها الناس إن الدنيا قد آذنت بالانصراف والرحيل ووضحت علامة فنائها فلا تحتاج إلى برهان ولا دليل فالأحمق من ملكته فاستغل بما فيها من حقير وجليل والعاقل من أعرض عنها فجعل إذا قال فيها ظن أنه لا يبيت وإذا بات ظن أنه لا يقيل يواظب على سنته ويلازم ويجتنب كل بدعة وضلالة وكل ما شاع في الولائم ويترك ما عم وشاع في هذه الأزمنة من المناكر عملا بمقتضى قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وبقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وفقنا الله واياكم فيما رغبكم فيه نبينا المصطفى الكريم wa aksiru min alsalaati alayhi waltaslim yaxfiru llahu lana wa lakum wa li saa'iri almuslimin amin allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salaati hayya ala alfalaahi qad qaamat salaatu allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allah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 ثيابهم ثم إن علينا حسابهم الله الله أكبر سمع الله لمن حبنا لك الحمد الله أكبر الله ko waral. asalaamaaleykum. قادت له الصلحاء وقدتني لك من طوبى مع السور هب لي تلاوتها ارزقني حلاوتها وارزقني الكشف فيها والتزي الخوري خلد هداي بها هب لي غناي بها وسرمدا ليكن يا محسن الصور واجعل خليلي شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهاب ذي القدر واجعل خليلي شهر الصوم يشهد لي بكوني العبد للوهاب ذي القدر واجعله أحمد عود يا معيد لنا محوت قبل عيوبي رب معك دري واشهد بكوني في ذا اليوم مرتضيا عن الكريم الذي لي كان في سفري واكتب كما لي في علم وفي عمل وفي التأدب ذا أو مع الظفر مكنتني في ديوري يا إلهي بلا جد ولي كنت في طوبى بلا ضرر قد كنت لي في ديوري يا إلهي معا عصمتني من عدى الأزمان والغرر وصل عني بتسليم على سندي وسيلتي من بمدحي والصلاة حري محمد من متى يلقى العدا أبدا ولو أسودا لدى آجامها تحرين والآل والصحب ما فاز الخديم به